salaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sal ñu leen di nuyu leen xam ne dinaa maye léegi ci sama page Facebook garab yoo xamante ni dafay joxe bayre ay garab olof yoo xamante ni dafay xëcc wërsëg di ubbi nit di joxe bayre garab la yoo xamante ni tey boo ko jiwoon sa tool su amee ay fan garab dañuy sax wër ko sungufam nag lu yéeme la si wàllu bayre danaa ko may léegi son page Facebook ngeen xool ko jëfandikoo ko si ma ko digale incha allah rabbi muy si wàllu commerce muy lu mën a doon yàlla dina la ubbi si kàttanam en France je vais vous je vais je vous dis que je vais publier incha allah tout à l'heure sur ma page Facebook des plantes naturelles dont leur poudre est efficace pour la renommée, pour l'ouverture, pour la promotion, pour acquérir une promotion dans son travail. Ça facilite aussi le commerce. Je vais publier, Inch'Allah, tout à l'heure. Cela sur ma page Facebook. Vous pouvez visiter tout à l'heure ma page Facebook ou le compte Facebook au nom de Swin Sambendjaye pour pouvoir bénéficier de ses pouvoirs. Bénéfique de ces plantes, de ces deux ou trois plantes que j'ai publiées tout à l'heure.